dafa yaatu. quand on parle de culture urbaine ñëpp dañuy foog ni rappeurs yi rek la. Mm-hmm. et par contre le mouvement hip hop est composé de branches. yaa ngi mm-hmm. am na le rap. et puis rap sax dafa nekk benn benn benn branche rek ci musique bi. Mm-hmm. parce que au delà du rap il y a yàlla R&B. gospel. donc tout ça dañ koy boole ci kooru rap. mais en réalité c'est pas la même chose. au delà de ça yàlla y a graffiti. graffiti. y a le y a le break dancing vous comprenez. Mhm. donc le mouvement hip-hop est très large. dafa mhm. yaatu ko mhm. ok donc tout ça c'est ce qu'on a appelé la culture urbaine. ce que vraiment euh, Nitdoff doit faire actuellement parce que y a un fonds le fonds je pense que c'est un milliard. te fonds boobu ñun ñoo ko xeexoon ñun ñoo demoon palais xeex ko devant Macky Sall. pour Macky Sall accorder ñu la maison des cultures urbaines mm-hmm. man mmh. j'étais à la présidence bi ñuy dem di ko xeex mm-hmm. donc c'est un mérite qui est collectif aujourd'hui six cent millions la démarré woon dem na ba un milliard mais ñu ngi xaar ñu yóbbu ko ba cinq milliards mm-hmm. donc xaalis boobu ça doit permettre aux jeunes de créer ce qu'on appelle des emplois parce que c'est un moyen pour combattre par exemple euh, l'immigration clandestine. Mm-hmm. ok donc c'est un moyen d'insérer aussi des jeunes parce que rab yàgg naa récupérer ay nit ñoo xamante ni dañuy jóge ci jeel yi wala ay nit ñoo xamante ne nii dañuy jóge ci yenn famille de de de de mm-hmm. défavorisé. mais man Red Black dafa am parti boo xam duma ci d'accord ak yow. waaw mais damay daaneel donc bon danga may wax rek. en termes de changement. wax nga ko da a amoon budget boo xamante ne c'est 600 milliards. 600 mhm. millions. 600 millions. voilà léegi mu ngi ci 1 milliard. oui mais ak euh, maison yi nga xamante ni créer nañ ko benn bi mu ngi Géejawaay si je ne me trompe pas Malal Talla moom. moo fa nekk waaw loolu laay wax foofu laa doon daanelee sax. parce que Malal Talla aussi chapeau à Malal Talla Malal dafa récupérer ay jeunes yu ay jeunes yu bëri yoo xamante ne ni. amaana bu leen seetaanoon tey dina ñu nekk danger ci population bi. Mhm. mais grâce à Fou Malade. mais malal inséré na leen ba boo yooyu tey jii am na si ñoo xamante ni ñu ngi tukki di dem fu nekk ci àdduna bi. Mhm. ñu ngi contribuer au développement du Sénégal donc c'est ça la mission. yaa ngi comprendre. Mhm. sànq loolu laal doon wax donc on doit voir des projets. comment fair pour contribuer au développement du Sénégal et comment faire aussi pour booster l'industrie culturelle hip-hop au Sénégal yaa ngi nit doof dafa mel ni ku bëgg a jiite réew ku nekk am nga sa sa programme. moi je suis pas dans la tête de Nit Doff mais ginnaaw moom lañ ko dénk amaana am na lu nekk ci xelam mais man lan laa ko mën a accompagner mooy mu fexe ba culture urbaine ñu xool ñëpp gis ci seen bopp. Mm. te encore une chose. Mm. am na nit ñoo xamante ni depuis que le fond des cultures urbaines existe ñoom ñoo ci mës a mm. ñoom ñoo ci mës bénéficier wu. voilà chaque année voilà d'accord moo tax ah, moo tax non non parce que xam nga foofu lay dafa yaatu li ñu ci mën a wax dafa yaatu. comprendre nga mais dafa am nekk ci kaw. mais ñoo xam ne ñoom rek la mais est-ce que est-ce que gëm ngeen benn affaire est-ce que est ngeen benn affaire. man Red Black bu dee alternance l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Mm-hmm. man li ma ci joué artistiquement amul ko ko ci joué. Mm-hmm. ok man est-ce que xam ngeen ni musuma bénéficier wu un franc fonds culture urbaine musuma ko def. ndax mos nga yóbbu projet. projet musuma yóbbu projet fonds culture urbaine musuma ko def. pourquoi. pourquoi musuma ko def su ma imaginer mu ne six six cent millions la man possibilité bi ma am pour mën a gérer sama bopp mën a gérer samay projet ñii amuñu ko et donc j'ai préféré man somme boobu ma bàyyi ko samay rak yoo xamante ni loolu war na leen mën a dimbali. sarak yooyu est jot nañ ci aussi. mais problème bi foofu la nekk. man je suis en phase avec vous. Mhm. mais man aussi tey ji en terme de conseil bu ma doon jox conseil ni dof dama naan képp ko mës a bénéficier wu. Mhm. ci fonds wu culture urbaine. par exemple nañ toog cinq ans. Mhm. kenn du leen financer. ñu xool ñi nga xamante ni kenn mosu leen a financer si fonds culture urbaine yi. ñu financer leen. Au-delà même des jeunes talents. Mhm. il y a les vieux talents qui sont là. Mhm. et qui ont besoin d'aide. parce que wërsëg bokkul daal. Mhm. yaa ngi comprendre ñu xool ñi nga xamante ne nii. musuñoo gis seen bopp ci fonds culture urbaine ñu jagleel leen fonds yooyu pendant quelques années. avant ñuy ñëwaat di di ñi nga xam ni yàgg nañ leen financer quand même. bi dafa war a yaatu. mais foog ñu auditer aussi xaalis bu bëri bi ci président Macky teg. Mhm. organisé nañ fi benn événement euh, tudde ko euh, maanaam rab jolof et cetera je pense que grand théâtre lañ ko defee xuma monument de la renaissance fay artiste et cetera en tout cas euh, moom Tafa pour man jàpp naa ni nit dof war na mën a war nañ mën a caytu kër gi d' abord li ñu fi jot a def xaalis bi fan la dugg ñu xam. pour vous dire. Moustapha yàggu fa yàqu fa. Mhm. non c'était nit dof pas Moustapha. non euh, moom moo fa nekkoon ñu jëlee ko fa indi fa nit dof. mais Moustapha euh, dafa fa six mois mhm. si je me trompe pas. Mhm. fa six mois. est-ce que xam nga ni culture urbaine récemment foofu yëpp dañ ko bloqué woon. Mhm. depuis des mois an ci ginnaaw. ah bon pourquoi gars liggéey parce que y a pas de fonds fonds yi dañ ko bloqué est-ce que xam nga ni déjà. ñoom seen biro yi dañ doon manqué ay courant. man dafa am ma appelé pour ma diir ret dama bëgg pour nga ñëw ñu liggéey ensemble. ma ne ko Moustapha mu ne ma woy ma ne ko may ma temps man liggéeyal hip hop bëgg naa ko. Mhm. mais je suis avec Mimi Touré sur le plan politique. Mhm. actuellement dafa am lu ñuy xeex. mooy système bi lañ ci war a jëlee. Mhm. je pas le temps d'être dans un bureau. yaa moment boobu j'avais d'autres objectifs suñu objectif mooy jëlee fi Macky Sall. looloo nekkoon suñu objectif. ce qui veut dire que man ay question de poste yooyu. intéressé wu la woon. bon intéressé na ma sax mais nekkul loo xamante ni c'est c'est une fin en soi chez moi comprendre nga ñun suñu objectif looloo ñu jën a ñoroon moment boobu je suis pas dans le partage du gâteau parce que mënoon naa dem dafa defal ma contrat may am salaire. mais soxla ma mais ci partage euh, du kii di nit dof dañ ko cee boole ndax gis nañ ni régime bi bu bees bi fi nekk ñoom dañu doon wax ni partage du gâteau moom du fi mës am mais gis nañ ne nit doof dañ nañ ko fi kaso ndax poste bu mu defoon gis nañ fi tamit nit dof euh, booba léegi mi ngeek ñoom seen côté est-ce que jàppoo ni dañ koo sédd ndax pour neexalee ko ko ndax am nañu jàpp ni depuis démb ba léegi polémique bi mi ngi jóg naan nit dof warta am yenn compétence bañ ko war a mën a fal voilà donc question de compétence sànq wax naa ko nee naa am na ñu bëri biñ leen di dénk ay mbir au début duñ ci am yenn expérience yi mais donc il faut toujours faire des cours de renforcement et avec le temps bu ñu leen jàppalee ñoom dinañ ci génn mais quant partage de gâteau moi je pense pas à l'entame toujours euh, de mes termes lan laa waxoon ma ni gis nga nit gis nga nit yàlla bu defee ñu fal la yow booy gouverner say nit ngay gouverner te ku xam nit dof xam jege jege ñaaleem ak ak Pastef nit dof nit dof il fait partie de Pastef mhm. il fait partie de Pastef te nit aussi booy gouverner say nit ngay àndal gouverner. Mhm. nit booy gouverner ñi nga wóolu ngay àndal gouverner. donc moom il le respect il la confiance du président de la République et de son premier ministre donc mënu ko qualifier fo qualifier foofu dafa mel ni Mimi suba ñu jël ko mu jël ma comme il a l'habitude de faire. man à chaque fois ci cabinet laa nekk bu ma dugalee ci cabinet ñu ne red black non carte kii euh, euh, partage du gâteau alors que c'est pas ça nit à chaque fois tu as besoin d'une équipe équipe boobu il faut nga wóolu leen et dama jàpp ni nit dof mooy ki nga xamante ni le président de la république moom la wóolu avec son premier ministre mm-hmm. et je pense que il va réussir sa mission te ñu ngi koy ñaanal en fait Madiambal Diagne aussi gis nañ mu def benn poste xam naa milliard euh, bu baaxee dinañ ci ñëw en attendant rek juste du ñàkk dañuy euh, fàttali yi nga xamante ni moom mooy euh, nit dof bi nga xamante ni voilà dañu ko dañu ko daal di nommé voilà. le ma jàmbal ma jàmbal il a parlé de nit dof. Mm-hmm. kilifa ci nomination yi. mais écoute gis nga ma jàmbal Diagne aussi à moment donné. Ah, mais xaar ñu xaar ñu wax. <laughs> <laughs> xaaral ñu wax la d'abord li ma wax donc pour rappeler également euh, président du conseil d'administration euh, du fonds de du fonds de développement des cultures urbaines moom la ñu ko daal di nommé muy FDCU nga xamante ni moom mooy di def ñu koy ñaana nag quand de toute façon parce que tamit euh, au-delà de nomination bi parce que bu fekkee dañu fa génne koo xamante ni acteur la ci culture urbaine teg fa nga xamante ni moom acteur la ci culture urbaine donc pour man suite logique la rek en quelque sorte reste à savoir ni dof équilibre dina fa am parce que tamit de part et d'autre rappeurs dajale leen culture benn bi dajale leen téye leen yombul. man Madiambal Diagne laa lay wax. xaaral kii ñëw si Madiambal Diagne j'ai vraiment un message pour lui. mais xaaral xaaral ñu wax Madiambal Diagne ñu wax Madiambal Diagne lan la wax a pare mais en tout kilifa. ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax. bon suñu suñu partenaire la ñëw na fi keroog. en tout cas toute l' équipe de Sen TV ñu ngi lay souhaiter. non guerrier la et puis il va assurer il va assurer borom voilà. ma ne ko nit ku baax la nit ku voilà mais Madiambal Diagne moom lenn laa koy wax. di nga xaar kii qu'il ne touche pas à la <laughs> culture urbaine et qu'il ne touche pas au rappeur quoi. Mm. yaa ngi gis nga l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mhm. et dans la vie il ne faut pas être un nihiliste mhm. ma jàmbal jaañ bu may dégg milliards yi mu am bu doon liggéey ak liggéeyam rek mënu mhm. ko ko may ma jàmbal jaañ dafa am lu bëri lu mu war a leeral sénégalais yi parce que déjà y une femme bu koy topp fii ci almadi bi par rapport ak benn kër këru jàmbur femme boobu génn na mu ngi kaas ma jàmbal jaañ il doit se taire il travaillait avec Macky Sall yaa ngi comprendre et c'était quelqu'un de très privilégié man nag mun nga laal ku nekk mais gis nga les rappeur la quand tu man nga toucher ko mm-hmm. moi c'est mes frères. te dañoo nekk ñoo xam ni dañoo xosal. they come from zero to hero. you know. Mm-hmm. c'est des gens yoo xam ni ils se sont fait tout seul. Nit Doff il s'est fait tout mm-hmm. gis nga waa kër gi Kaolack bi ñu leen di jàpp. ci jamonoy ay avant 2000. Lamine Diack Lamine Diack di leen tëj kaso ñu nekk ay xale yu ndaw. boobu ma Madiambal Diagne mu ngi liggéey ak nguur gi quoi yaa ngi comprendre. donc ñii c'est des jeunes à encourager c'est des jeunes yoo xamante ni ils créent de l'emploi que ma jàmbal jaañ nag bu fekkee bëgg na am jàmm ak rappeurs yi bu yeboo na bàyyi rappeurs yi quoi mhm. na gérer na continuer di critiquer na continuer di political Macky Sall la ak Amadou Ba parce que ay élément Amadou Ba la ak élément Macky Sall c'est quelqu'un qui est là et il a peur peur de quoi par rapport à ses propres intérêts qu'il nous fiche la paix ça moom je le dis solennellement qu'il ne touche pas aux rappeurs parce que nous aussi genn golo du gudd na trop mais loo ci laal mu yëg ko mm-hmm. mm-hmm. et la preuve jour bi ñuy jàpp malal taal alors que amoon na benn rencontre bu amoon géejawaay mu ma fekk Paris mm-hmm. mais jour bi ñu jàppee malal je pleurais en fait parce que dama nga xam ne injustement lañ jàppee malal te malal li mu wax c'est clair yaa ngi comprendre dañu alkaati il doit donner le bon exemple loolu dëgg la puis il a critiqué wax yoo xamante ni ñun société bi ñu ngi koy dund mu nekk dënn dëgg quoi yaa ngi ñu jàpp ci malal ce jour là j'ai pleuré quoi mhm. yaa ngi dama ne man boo fekkoon Sénégal dinañ ma jàppale quoi mhm. ma jàmmal moom la wax lu ko neex mais les rappeurs là qu'il les qu'il les qu'il nous laisse tranquille quoi mhm. voilà Bilia bu ñu gën a comprendre un peu Madiama Diagne li mu wax d' parce que Madiama Diagne bu Bintalaay dina ci wax xalaatam quand euh, mais avant loolu ñu ràpp moom kii di ma Madiambal Diagne nag ma ngi xam le nee na le parcours euh, tumultueux de leur formation politique à comporté des phases sombres durant lesquelles certains militants et responsables ont été chargés de rôles et de missions inavouables et cela les oblige à nommer n'importe qui à n'importe quelle fonction moom nag loolu la wax jàpp na ni daal <laughs> xëy na euh, nomination bi ñu def kii di kilifa ak nit dof Mhm. gis gis maanaam gisaane gi ñu amoon ci politique bi mhm. depuis président Macky Sall ak Pastef bi ñu fi ñëwee ci régime mhm. président Macky Sall jàpp na ni daal euh, doxalin bi ñu doxalee ak yenn militant yi nga xamante ne dañuy nekk tamit ci politique bi bu ñuy fal daal dañoo war a xam ki ñuy fal te dañoo war a xal tam xam tamit ci mm. fonction yi nga xamante ni ci lañ leen war a jëlee mooy poste yi ñu leen mën a teg ay na wax les nominations des kilifa et de Nit Doff donnent encore du sens à mon propos du 22 7 euh, xam nga dafa waxoon ci jamono boobu ne euh, on se rappelle ba mu ne maanaam Ousmane Sonko ak ñi mu àndal benn non ma Diagne dafa waxoon ne benn lobby la boo xamante ne ñoom ñoo ànd di xeex mm. euh, pour jël benn affaire mu ni dañuy ils sont obligés en quelque sorte ñu nommer ñii ñu nommer parce que processus la boo xamante ni lobby la boo xamante ñoom ñoo ci àndoon di xeex bu ñu ko dénkee ci ci nu mu gën a leere en may may ñëw nga baal ma may ma tuuti rek ma daaneel man du ma déglu Madiambal Diagne mm-hmm. ok parce que dama jàpp ni il n'est pas de bonne foi mm-hmm. du ma déglu ma jàmbal jaañ parce que dafa jàpp ni la nouveau pouvoir laa dañ koo yàqal ay business am du ma déglu ma jàmbal jaañ parce que c'est quelqu'un boo xam ni moom dafa am fu mu far élément Macky sàll la élément Amadou du la ok mais ñi muy wax ni par rapport ak liñ leen dénk kilifa moo jën a compétent ma jàmbal jaañ miy wax par rapport à son domaine nit dof moo gën a compétent ma jàmbal jaañ par rapport ak liñ leen dénk quoi ma jàmbal Diagne c'est pas quelqu'un de crédible nekkul ko ñuy déglu Moustapha Diakhaté aussi c'est la même chose parce que dafa am ñoo xam ne dañoo jóg pour yàq jóguñu parce que dañoo bëgg Sénégal c'est pas vrai dañuy jóg parce que dañuy politique nan laay def ba yàqal ki fi nekk mais moom il faut mu ñëw mu dëggal boppam qu'il arrête de sa cacher derrière le journalisme pour faire sa politique ça c'est ignoble en fait euh, nommer n'importe qui et kàddu Madiambal Diagne Binta Laye encore Madiambal Diagne mm-hmm. waaw moom ci